jafe-jafe yi di ko indi mooy am na ay nit yoo xam ni dañoo bëggoon a récupérer organisation bi bi ñuy ñëw dañoo indi mbooloo boo xam ni ñenn ñi duñu ay délégué te congrès ku nekk xam na ni délégué mooy ñëw délégué yi fan la ñuy tànne mooy ci assemblée de renouvellement des bureaux de section yi am avant ñuy dem ci congrès national bi. bi ñu ñëwee ñun dañoo bañoon ni délégué yi duñ jóg ñu jël badge yi ñu yoroon. songu nit ñi xotti badge yi récupéré ko parce que man dama amoon concurrent bu ñëwoon ak xaalis bu bare bari commencé woon guerre nit ñi avant même congrès bi di am jour congrès bi di am ñëpp say gis nañ ko lu ñaaw moo am. ñu def suñu ay rapport présenté leen discussion yi ubbi ko ci jàmm ak salaam bi ñu paree ñu renouveler commission yi ñoom ñu gagné yenn commission yi ñoom ñu gagné yenn commission yi léegi nag mu des alikali ji alikali ji mooy poste secrétaire général national bu service authentique ñu war a wuutu Abdou Faty te vote bi ko COSIDEP ak aidé par la CSA CSA ko jàppale pap Diop CSA ñoo def lépp ñun ñu taxaw fële ñu def vote bu jaar yoon def dépouillement vote secret bu jaar yoon def dépouillement ba gagné ko mu jóg kott ma ne ma félicitation man maay doom ji naaroon a rendi baayam loolu la wax wante baay bii neexul a rey lu tax mu wax loolu parce que man maa ko jox section bi mu yore ba ma fa comme inspecteur de l'éducation man maa section boobu man maa ko mayoon wax ni ànd naa ci ci dogal bi la wax premier adjoint Ibrahima mii ko. mu compétir ci deuxième adjoint ak kenn koo xam mi ci sama sama camp mu gagné kooku. bu liste membre bureau bi man maa jiitu comme secrétaire général. kii moo ci topp comme premier adjoint moom moo ñëw comme deuxième adjoint li ñu doon séntu ci ñoom mooy ñu tuub lañu defoon rëcc ko ba pare nag góor-góorlu démission yooyu moo feeñ dafa am lu mu làq li mu làq mooy dañ leen a waroon traduire yóbbu ci conseil de discipline dàq leen organisation bi ñoom xam nañu loolu organisation bi mënuñu see yàq dara bu ñu dee dem ñoom cundug ñooy dem jàngalekat yi xam nañu fi seen njariñ nekk jàngalekat yi xam nañ ma man bu baax a baax jàngalekat yi xam nañu ñii jàngalekat yi xam nañu Abdou Faty bu baax a baax bu ñu dem ñoom cundu ñooy dem bato dem nag bato Coste